Ah, ah. ahlan bikum bor bi Sénégal xam ci àdduna bi Macky Sall ñëwee ci bopp réew mi bor bi fa gën a yokku direct news moo ñu ko xamal waa FMI tubaab yi ñoo génne rapport ne Sénégal yoon wi xaw baaxut buñ ci waxut nag suñ bor bi dana dem ba jéggi dayoo ndax li fi Ablaye Wade bàyyi woon ci bor lu ko ëpp téeméeri junne yoon moom lañ am fi mu toll nii te Macky ko leb ak ñi mu àndal l'observateur ne waa FMI yi fañ cee yokk wax dëgg réewum senegaal ndax ne ñoom dañoo jaaxle ci réew mi bi fa cher ñu ne déetawaay tubaab yi nee nañ économie wu Sénégal croissance bi fa yokk te askan wi ñoom yëguñu ko tey lañ gën a sonn tey lañ gën a ndóol makki nag lam war a xool dëgg-dëgg mooy tolluwaayu saar carte ga jaxasoo na fa de a ah, yaaw seetal ginnaaw bu njiit la démissionné loog Afrique wane gannaaw ñu deful ndànk nag total français yi ñooy mujj na xuuf paa maanaam jël kër ga yëpp ba tax turbine yéen kaay yi nee na Sénégal nekk ay action yi gën a mag ca saar buñ ko ñàkkee ah dina mi gàllankoor xar ba yegg ca nañ ja mooy ne dialogue politique bi ba léegi demut dikkut fa taxaw les écoles yéen a ñi ko xamal le quotidien yéen a kaay na ko walaa may ma ma waxal la gis nga démb bi ñu amal seen ndaje ma ci xuloo waxante kàddu yi ñaaw dënn ya jóg ba Benoît Sambou fa mer gedd ndaje ma dem a yow seetal Déthié Fall ba fa toogal ku jégi moo na ko yow laay waxal Benoît Sambou yéen ak ñu farak Macky yéen a yàq dialogue politique bi ndax point bu ñu war a juboo yéen ngeen bañ na du ngeen juboo moo xam jiite parti jiite réew mi article 80 arrêté Ousmane Ngom ba Sall ak Karim lu ji njaag a njaag Benoît mer na ki na fa may fowantoo jóg génn saal ba xam ñu daw jàpp ca ñaan ko ngir mu ñëwaat val jooja njaay tontu na dëcc faal kaddu yi saf sàpp keneen ko fi waxoon kaddu yi saf sàpp mooy Barthélemy Diaz critique yéen a kaay nee na fi mu toll fekki na waa ñoo lànk ñoo bañ ànd na ak ñoom naka noonu bugaan géy dani yéen kaay bi ne ñoo lànk nag kon seen doole ja yokku na ndax ñaar ñooñu fa ñoo dëgër moom nee na lim nekk chrétien moo ko bàyyi ca kaso ga professeur Souleymane Bachir Diagne na hee def leen ndànk yéen politiciens yi moytu leen am na yenn kàddu yoo xam ne fay taxal réew mi yee fitna ay diw chrétien laag diw jullit laag wala diw xeet bii la bokk man waasaw yi laa bokk yooyu moom nañ ko tëral lu garaaw la jarul di foye de ba tax laas yéen a na ko professeur yow nag jàngal nga politiciens yi keneen ku ñuy jàngal nam war a yoree mairie bu Dakar Plateau du kenn ku may Alioune Ndoye a yow seetal fa ñu bëgg a tabax investir seen xalaat alal ca commune ba sàkku ci moom mu jox leen ngir ñu tabax ndigal lu toll fanweeru tabax maire ba bañ te lépp lu leen war ci këyit xam nañ ko ña ko war a saytu d'accord nañ ne ñi war nañoo tabax maire ba na leen xalaa bàjjo xalaa xalaa ngeen ko fi tabaxee de ba tax Umar Fay leeral askan wi di leeral ci waa grand place yi ne kaay na loolu garaaw la ndax lu ëpp ñaat téeméeri milliards Dakar nar na koo ñàkk lu ëpp ay junney ndaw waroon Sénégal nag nañ xam ne Boun Abdallah Dionne ab gisaanakat la xoykat la waxuma ko laas yéen a kaay ko wax bu seetal bun Abdalaa Jonn moo fi waxoon ne candidat yi war a dem joŋanteeg Macky duñ weesu juróom te noonu la mujj amee mu ëlbatiku na Macky mooy gañee élection yi te nii la koy gañee nam ko waxeek nam xamee presque benn la léegi nag fi mu toll ni nii nee na Macky fay am troisième mandat Le Soleil yéen a kaay di ñu xamal ne chrétiens yi tey la ñu tàmbalu seen koor ba fukki fan ak ñaar ci weeru avril Libération moom di ñu xamal ne xale bu jigéen ba ñu wax Miya Njaay te mu sàccoon xale ba ca diwaanu Fatick ray ko ñu doon wax naan fa dof ak ndekete dafut jinna jàpput ko bona xol bu ñu la tax mu ray ko dañ ko a tàggat yaram na moo fekk Chelsea sa biir dëkkam di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi ba muy bëgg a dee ñetti bal ci dara Barça moom fa rëcc am sens Naples fa ko naroon a mbuqi équipe bu mag a mag bi nag Real Madrid tay lay bal ak City Lyon ak Juve stade yéen a kaay ñu ko xamal dama ñu xamal moom sunu làmb mooy ne Bécaye Mbaye wax na waa CNG na ko ñun tournoi lañ bëgg diggante Bombardier Balla Gaye 2 Modou Lo Tapha Tine tournoi bu nar a neex ci amateur yi li neexut ci askanu Sénégal démb ci talaata ji mooy poussière ngelaw lu bari dëkk bi xonq cor koo taseeg ci mbedd mi mu nga mel ni kuñ puudar ñii sol ay masque ba tax si du quotidien ne démb kay li am ci réew mi ci poussière jéggi na dayoo xab tsunami da la ko tuddee source a yéen kaay di ñu xamal na mbootaayu réewu Afrique yi fa ñoo dajala waxtaan ngir jëli seen doom ya nekk ci réewum Chine ngir bañ jàngoro ju bon ji coronavirus dal leen waaye seen projet ba fa judd rek dee maanaam fa ñoo lajji fi mu toll nii mënatuñoo jëli seen doom ya réew mi yéen kaay ne jàq nag mi ngi doot di jot ndax coronavirus bi jàngoro ji mi ngi law law gu am doole ci àdduna bi aya yow seetal réewum Chine jàngoro ji rayagum na fa ñaari junne ak juróom benn téeméeri doomu aadama réewum Iran rayagum na fa fukki nit ak juróom ka topp ca seen ministre jëwriñ ba ñu dénk wàllu wér-gu-yaram moom sax am na jàngoro ji ma nga feebar de réewum Corée du Sud fukki nit deeyagum nañ fa réewum Italie xam nañu fa dee jàngoro jàngay law donte kilifa ya jël nañ seen matuwaay ngir mu bañ a tasaaroo xaw ma kan moo fi andi jàngoro ji waaye lor na ay bakkan yu bari xale bu góor ba ñu lor source ay yéen a ñu ko xamal a yow seetal daal fa gis benn xale bu jigéen bëgg ko jabar di ko neexal defal ko at di defal baayam ak seen waa kër lu dul jeex ñu ne ko danañ la may jabar luñ xewle laaj ko lu dee ci kër ga moo ko rey facture courant ak ndox dépense su kër ga dara manqué wut bàyyu xale bu jigéen ba ak doom ja ñoo téye waa ji daal di ko ratt ni nag waxam doom alal ja yëpp lañ lekk ba mu jeex takk saa bu ne may leen ma may takk rek ñu naan ko xaaral tuuti dafa am lu ñuy nekk continuer di ko lekk rek bañ xamee ne jeexal na nag bàyyi ja ko kenn du la fi may jabar ndax yow nee nañ ab dëmmu nga fañ lay tooñ ay xale bu góor ba nag dem kalaama leen ca yoon ba ñu yóbbu leen tribunal leen xatte waa ma ne su fekkee fañ koy tooñit yéen tooñ ngeen ko ndax mënoon ngeen ko teel a xamal na doo fi amee jabar xatte bi gën a maandu mooy nañ ko delloo mbooleem alal jum joxoon xale bu jigéen bi xale bu jigéen di mbaraan baayam ànd caag moom di mbaraan di sa xaalis ne doo dem sëy ji ak ni jëkkër jafee yaag sa bàyyi xaw ma ku gën a bon